Fatimata Diop Touba Darou Khoudoss. soxna Fatimata Diop ginnaaw bi ñu la nuyee bu baax ziar bi di la ñaanal jàmm ñu lay laaj naka nga gisee élection yi ci gën a def jàmm yàlla na élection gën a seet barki borom dëkk bi. teel ci ñaax ci yéen ñee góor ñi ku ne na ànd ak dam bokk na daal loo am lu ne ci yàlla ci rële la ko yàlla nay sa njiglaay te lépp daal ñu ànd ko dam ndax dëkk Serigne Touba bii jàmm rek lañ ci bëgg ba Serigne Touba moom moom dëkk bi loolu rek lañ bëgg ci dëkk bi. réew mi jàmm la bëgg. waaw réew mi la bëgg mais kenn du yee fitna te Macky Sall boo xam ba yee fitna lii xamal fu muy tàmbalee mais boo xam fu mu yem bu fekkee ne interface donc ngay xool ba tax nga bëgg a jaay sénégalais yi bëgg leen a rey da na toog ay carte nga fal tey nga war a daanu bëgg a jaay ci ay cadavre xoolal Abdoulaye Wade tey moom mi nekkoon ci maanaam defar na lépp nga nekk président li mu am Senghor amu ko Abdou Diouf amu ko Abdoulaye Wade amu ko li muy ñëw dugg PDS 1990 presque même pas ans ministre d' ministre assainissement premier ministre président assemblée nationale dégg nga ban président de la République Abdou Diouf amoo ko Senghor amoo ko Abdoulaye Wade naa jël la grande porte il faut être digne et grand parce que l'histoire de na un jour Macky Sall c'est un ancien président. élection yi de euh, dund nañ ko ci jàmm mais. amna na lenn ñu ci naqar rek muy résultat yi yéex génn ndax ko lay élection yi jàll yëpp résultat li mu yéex génn daal suñu xel dalu ci dara dara dara dara dara waaw waaw seetlu nañ ko ci waaw dañu ni guddi lépp loo xam si rek Sénat dogal na ko ci ñu ngi boolee tubaab bi mu jommal leen sa leen ba nit ku ñëw tey mën a am liberté bu toll nii dund li ko neex am liberté bu toll nii am indépendance ba noppi ñun ñëpp bu mu njaam gi dañoo gàllu woon kon Ila Touba leen doogu ci dugal Ila Touba ah. fii Serigne Touba lu fi waay di jaay te bañ mu jar bu ko ci tudd waaye boobu lu mu jar boole ko jàpp nañ tamit ñu si bëri da leen tënk ci li ëpp ci Sénégalais yi ba dañ bëggoon a amee seen di carte dem wote ji librement def seen devoir de citoyen daf leen koo xam mooy tam vraiment ñu ngi koy ñaawlu parce que moom bi ñuy ñëw lépp seen la Abdoulaye Wade dafa ñaari carte ñu ko la carte d'identité teg ko leer am sa carte bu à chaque élection nga génn si amatul woon problème ñu yàq bu def dara sëñ bi loolu lan moo fi jaroon kon sànq li nga sensé dara nga nga kan xam ne benn bu njëkkoon mun nga am carte électeur carte d' identité da ngay dem am ko ñu la neexee dem woote ku la neexee ñu bàyyi la nga exprimer mais sa waay moom adversaire politique lay bañ gis loolu mu ñu jaaxal la si ñu naqari la si moom waaw élection yi ñu ma comme ni ko ñëpp rek en tout cas ñu ñëpp yow dem ci bureau de vote la parce que instant bi nag peut être ñu wax naan fii la fare fii la de toute façon bi quoi en tout cas ñu ngi xaar juge bi lépp luñ lépp luñ pour jàppale wala si ñun ñëpp moom la ñu bokk ak naka ah, xam nga moom bon. ay citoyen lañ bu defee lu ñu war a def ba pare dañuy bàyyi ki nga xam si ne moo am compétence bi loolu quoi léegi juge bi moom compétence bi joxe ay résultat benn sens su ko joxee nag bon li nga xam ne moom la joxe dañuy moom moo am compétence joxe ay résultat léegi ñu sant yàlla rek jàll ci jàmm fi na am ci yàlla na jàll ci jàmm donte bis temps yi nag génn sax nag waaye nag am na yaakaar du bis temps yi génn xam rek ngay xool Sénégal bii jàmm rek moom moo fa am ku yàlla jox réew mi rek nan ko nangu xam ne jox na ko ñu nangul ko yàlla ci réew mi mu ñu Touba la parti parti pouvoir perte na fi bu xel perte na fi am na am na fi lu xaw tax du tax ne waa Touba dañ ma bañ wala dañ ma xeex. jërëjëf sëñ bi ñu ngi leen laajal tamit résistants yi nga xamante ne si ñun ñëpp mën nañu ko ah résistants yi de moom euh, gis naa ñu ngi ñu ngi yónnee ci néew néew kii bi ci internet bi ñu wax ne Macky Sall 46 daaw ñu ne am na 51 56. boobu nag ban moo ci nekk dëgg ba ma opposition bi li wax moo nekk dëgg comme euh, parti pouvoir bi li wax moo nekk dëgg. waye man sama calcul mom li calculon calculé dama réer na nga xam ne am na côté yoo xam ne saa yoo dama koy yéex a dégg am na yoo côté Casamance côté Osawa côté Tamba côté Saloum yëngu laa ko di ci guddi mais fofu ma am yalla bari na ci la ko woo ci ko ki adam waye makke wala li ma koy jàpp ne war nako am lu gàtt gàtt war a weesu 40 wala laa waye nak euh, man amna euh, na am na xuma nag yooyu nag euh, xibaar xuma xam wér na xam wérul nag ku ne nga wax dal ku ne nga wax daal xuma kan moo wér xuma wér xam nga risaan ni xaar ba àjjuma rek su àjjuma eh, daanoo xaj na ñu ànd ci li gars yi wax rek. waaw sant nga xam ne amagoon na ci jàmm jàll ci jàmm te ñaan ma tënk lépp am ci ay fii nag moom dëkk bu taalibe dëkk ab yar la ak dëgg rek la ñuy sax ak njub ak taal ci li nga fas yéene sax ñaan yàlla lépp kon ne am ci jàmm dal ci jàmm loolu laa leen ko ñi nga xam ne gane nañ ko nangu ñi nga xamante ne bii ñoom lañ gane ah. ñoom ñoom lañ gane ñu ñu nangu ñi nga xam ne ñoo gane ñu félicité waaw jërëjëf sëñ bi nee nga lu am na solo waaye naka ngay xaaree résultat yi nga xamante ni si ñun ñëpp li nga xam daal moom mooy suñu moom lañ ci jublu moom lañ ci bëgg ñun Sénégal gépp commencé bëgg loolu mooy leer ndax dëkk bi dal leer gi rek nga bëgg na leer bu bi nga xam état bi dafa gagné ñu opposition bi nañ bañ ci andi benn jafe-jafe te xam ni ku ñu fekkee tamit euh, opposition bi moo gagné état bi na nangu loolu waaw moom daal na leer ndax bu leerul rek indi mën naa indi jafe-jafe mais bu leeree rek amul benn jafe. li ko Sénégalais yi gisee rek xam ne deuxième tour dafa war am ndax ñëpp mën nañu xaar aussi tamit démb bu ñu defee élection yi ba ci suba yi ñëpp mën nañu xam ne deuxième tour dafa war a am ndax Abdoulaye Wade bi moom 13 régions la rek 12 régions la gagné kon nag il faut

si journaliste yi bari na si yoo xam ne ñoom ñoo dévalisé suñu xel yàq di dund yëpp daal ñu ko teg. la sooy noo gisee mooy li fu xool ji bu njëkk day def lu yàlla ci tubaab ndax bu njëkk sàcc yi dañu fee bari woon tey nag sàcc yi dañu yàlla dañu leen parce dañ lay laaj dem résultat yi nga xamante ne si ñun ñu ngi koy bokkandoo di ko xaar yow naka nga ko dundee. résultat yi ñu bokk. nga xamante ne ñu koy xaar naka ma ko dundee résultat yi ñi ñi fi jiitu tubaab ñi fi jiitu xam ngeen ko résultat Sonko ñoo fi jiitu ndax dañoo waxoon fii li li li jiitu ne ñëpp dañoo taxawoon na ma dikkee day day day ànd day ànd ak yàlla def na lañ waxoon la dara du ci dëgg man mi wax yow man mi wax yow eh, kii laa ma digg ñu laa wote waaye fii ci Tuubaa moom Idrissa fi jiitu Sonko tegu. yow na ko deuxième tour la ñuy dem. ak laajte. jëlee benn xool ci gouvernement français président conseil fekk fekk naa ko ak man maa ngi dugg ñu pare nañ leen di jàpp yéen ñëpp. di jàpp di jàpp léegi waaye li ma dégg ci ci bi ñuy annoncé may déglu man de li ma li yaakaar naa ne déchet bu mën a ñàkk ndax bu bu li nee wa bu bu li nee am. li mu di Sonko am li muy indi am dara ka duñu ceeb kon nag ma yaakaar ne déchet bu dana am léegi nag moom kii Macky su fekkee bëgg naa jàpp ci réew mi mbaa mu bëgg indi defar boo xam ne ñu bari dañ ci dee te te moom du ko fekkee nañ ko ne nee naa di di du ko def. kon Sénégal dana ko woon loo xam ne ba ba ànd ak soo ko tey mu saam parce que nit ñi dañoo dañoo maar. waaye élection yi de moom jàll na ci jàmm alhamdulilah waaw waaye li ñuy séntu daal moom résultat yi daal moom bëgg nañ daal moom leeral nañ si bu baax a baax deuxième tour moom mënul ñàkk deuxième tour moom dañ koy dem moom waaw. noonu nga gisee élection bi. waaw yow naka nga dundee ni ministres yi nga jëlee yow personnellement naka nga ko dundee. da ciy taay da ciy taay doom li xaw a tey sama xel moom mooy waa ji tuuteeg yooyu noonu Sall mi nga xam ne moom xaw naa tey sama xel te gars yi randal fi na na ndax bi ma waxoon ndax dañoo taj ma ko léegi dund suba ay conseils yooyu noonu résultats yi ñu jël loolu moom xaw naa xaw a tey sama xel yooyu noonu mais yàlla baax na daal ñun daal ñu ngi dund yaakaar daal dund yaakaar baax daal jàpp nañu daal dëgg moom lañ koy gëm-gëm boobu daal lañ koy

waaw ginnaaw bi nga waxee loolu ba pare dañ lay laaj naka nga xam naka ngay xaaree résultat yi nga xamante ne si waaj bi naka koy xaaree yow. waaw ñun de ñu ngi xaar rek muy bu nekk dëgg ñu ngi xaar loo xam ne ñu ngi xaar ñu ngi xaar loo xam ne day bu génnee mu tegu ci dëgg rek ndax ñun dëgg rek dañuy xaar te li ñu gis nii li nga xam ne ñun de xëy na comme ni ñu ko waxee ñu ngi xaar boo xam ne waaye ñun ci résultat yi war na ko deuxième tour daal war na mën a am su fekkente ne nag ñu gouvernement bi rek ñu ànd ak moom su fekkente ne tamit gis nga ko tamit yaakaar naa ne dara ñu dox. population bi dina war a yoon bu defee yoon rek bu boobaa di ñu def Sénégal jàmm ak yëpp ñu mën a am jàmm moom tamit waaye bu leen amee tamit nag dañoo continuer te moom moom moom moom